wanfacna bima allamtana wa zidna ilman assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillahi alladi axyaana bacdama amaatana wa ilayhi nushur Rewmi FM 97.5 delsuwaat nañu ak suñuy mbokk ñu ñuy topp ci waxtaanu fajar wi ci waxtu bi ngeen di si ànd ak seen mbokk Ibrahima Drame ki ñu àndal ci wàllum xarala gi mooy suñu technicien bi di jaww jàllo mbokk yi ñu bokk sant yàlla buur bi tabaraka wa mi ñu may fanaanuk jàmm ñu ñaan ko mu may ñu kendaluk jàmm duñu deñ di ko tàllal loxo moom mi ñu mayoon ñu génn ci semaine ba weesu ñu di ko ñaan ñu tàmbali ci semaine bi ñu tàmbali nii ci bismillahi rahman rahim ñu koy ñaan mu may ñu jeexale ko ci alhamdulillahi rabbil alamin yamb na ko mën na ko sañ na ko te moom dong lañ koy ñaan nag yan nañu ko yalla boole defal amin ya rabbal alamin mbokk yi xam ngeen ne waxtu wi wu jotaan ba noddkat bi noddu ci ginnaaw tuuti di yëgle ne njëlbeenu audience ba ñu war a am ak suñu borom waxtu ba jot na su ko defee képp kuy jullit te nga dégg yëgle ba noddkat bi di yéglu ci jàkk yi ci jumaa yi ñuy bakk magaayu yàlla di seede ne yàlla donga fi nekk di yàlla ñuy seede ne yonent bi de dëgg la yàllaa ko yónni waaye ñu toftal ci beneen baat bi nga xamante ne moom la yow jullit bi moom nga moom mooy langa nga signé sa boroom keroog bam doon signé ki yow en tant que jaamam mu di la wax ne wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li yacbuduuni amul dara la tax ma bind jinne yeeg doomu aadama yi dara warut ma bind leen lu ngir ñu jaamu ma jaamu yàlla woowu nag mu am lala noddukat bi jëlal comme part de responsabilité mooy yëglu ba may yëglu ne waxtu jokkalanteeg sa borom jot na waxtu audience bu mag ba doomu aadama di am xeetu audience si dundam waaye ba mu war a am ak boromam mooy li ci gën a ëpp mooy li ci gën a ëpp dayo te mooy li ci gën a ëpp solo yeneen audience yi naam baax nañu am nañu solo yeneen rencontation yi naam baax nañu am nañu solo waaye audience ba féetee audience yooyu yëpp ci kaw mooy audience ba jullit yi doon joxe waxtu su niiw ci ginnaaw ba keroog nga dégg kay woote audience boobu muy naan ci woote ba mu daan woote gannaaw bu mu wiitalee yàlla ci kenn ba mu doon di kenn mu dëggal ne yonent bi yàllaa ko yónni waaye mu tegsi ne kaay leen ci njëlbeenu audience bi nga xamante ne moom ngeen wala remplir ak seen borom mu daldi ci teg ne kaay leen ci julli bi nga xamante ne moo tax yàlla bindi leen te mooy njël beenu jëf ba ñuy rakle keroog bés pinc ci jëfu doomu aadama bi mu doon jëf joo xamante ne ndegem baax na dootuñu fi nekk du xool leneen waaye wal iyaazu billah noo ngi muslu ci yàlla bu dee loolu baaxul nag ah duñu xool leneen mu doon julli woo xamante ne muy jokkale doomu aadama bi ak boromam waaye mu doon julli woo xamante ne mooy pont jaar diggante doomu aadama bi ak boromam ñu di ko defee ci béréb yu fasante ko ñii ñu di ko defee ci jàkk yi ñii ñu di ko defee ci jumaa yi waaye mu doon niigu yàlla boo xamante ni la ci yenentu bi wax sallallahu alayhi wa mooy ngéneelu béréb yooye ci kaw suuf si mu ne ñu ahabul bilaadi ila allahi masajiduhaa wa abgadu bilaadi ila allahi aswaaquhaa rawahu muslim mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ñuy tegtal bërëb yu fasante ko ci kaw suuf si ana wan bërëb mooy béréb bu gën a neex fa yàlla bu dee yàlla am na béréb yu ko gën a neex ci kaw suuf si ki mu yónni de moo ngi nii dañu tegtal mu ne ñu ahabul bilaadi ilallahi masajiduha gën ci dëkk gën ci karke gën ci dëkkuwaay gën ci réew gën ci béréb ba gënal yàlla ci kaw suuf si mooy fa ñu tracé jàkka yi jàkka ya nga xamante ne moom lañ ko askanale kon jàkka yàlla ya nekk ci kaw suuf si mooy béréb ba amal yàlla solo bu dee yàlla dafa am tànneef bërëb ya muy tànn ci kaw suuf si ki mu yónni moo ngi nii di ñu tegtal ne jàkk yàlla yi mooy béréb ya ko gënal jàkk yàlla yi mooy béréb ya yàlla sopp ci kaw suuf si waaye mu doon bërëb yi nga xamante ne bërëb yooyu la yàlla sopp ci territoire àddina si mu joxoñ ñu tamit yeneen béréb bi nga xamante ne amaana mooy béréb bi nga xamante ne bu dee yàlla am na béréb ya mu jéppi ci kaw suuf si mooy béréb ba ñu yonent bi bugg a tegtal nii moo tax mu ne ñu wa abgadu bilaadi ila llahi aswaaquhaa mooy bu dee borom bi tabaraka wa am na béréb ya mu yonent bi nee na mooy marché yi kon marché yi ndegem yonent bi mu ngi nii di ñu joxoñal ne bu dee yàlla am na béréb yu mu jéppi mooy marché yi waaw ndax marché yi euh, la fay xew képp kuy boroom xel xam nga ko marché yi la fa nekk képp kuy boroom xel xam nga ko junj doy na boroom xel kon ba yonent bi ne marché yi mooy béréb ba gën bu dee yàlla am na béréb yi mu jéppi mooy marché yi kon bu ñu demee xool dinañ gis la tax yonent bi joxoñal ñu ne marché mooy bërëb ba yàlla gën a jéppi ci kaw suuf si waaye du tey bi léegi bu ñu demee xool la tax yonent bi joxoñal ñu sallallahu alayhi wa ne ahabul bilaadi ila llahi masajiduha bërëb ba gënal yàlla ci kaw suuf si mooy jàkk yi bu ñu demee xool la tax loolu tamit dinañu gis ne ndekke loolu mooy li am sallallahu alayhi wa ndegem moom la yàlla xamal la kenn xamul moom la yàlla won lu kenn gisul moo fi ëpp xam-xam te kenn jànglu ko sallallahu alayhi wa kon la mu tal nii képp ku dem di ko settantal di nga gis ni loolu mooy li nekk yan nañu ko buur yalla fayal sallallahu alayhi wa sallam kon ndegem béréb yooyu yàlla buur bi tabaaraka wa taala sopp ci kaw suuf si fa la jullit di dem daje di am pour mille audience ba ñuy am ak seen borom kon yow mi ko def ci ginnaaw tuuti gannaaw bi nga déggee noddokat bi di wax asalaatu julli xayrun moo gën mina nawm nelaw ba ngeen nekkee nga dem wuyu woote boobu kon xamal ne yàlla xéewalal na la xéewal goo xamante ne mooy lam ñu wax ne wa in tauddu nicmatallahi laa tuxsuha bu ngeen fi nekkee di lim xéewalu yàlla yi du ngeen ko dajal du ngeen ko matal du ngeen sax nekk sax di ko géem a lim tellement ni mu bëree jalla kon mbokk yi loolu yëpp mu bokk ci xéwalu borom bi tabaraka wa taala lépp lañ fa jaamu yàlla yal nañu ko buur yàlla nangul bu ko nangoo yal nañu ko fulindil bu ñu ko fulindalee yal nañu ko fekk fa moom bés penc bés bi nga xamante ne da bés boo xamante ne yowma laa yanfacu maalan wala banuunan illa man ata allaha bi qalbin salim bés la boo xamante ne keroog doom du fa njëriñe alal du fa njëriñe la doon lay njariñ nit mooy jëf bi nga sellal ngir yàlla nga dikkee fa yàlla ak xol bu laab xol bu set wécc ak wéetali yàlla ci nekkinam topp ndigali yonentim sallallahu alayhi wa sallam yal nañu ko yàlla yombalal mbokk yi tey ñu fas yéene ànd ak yéen ci aaya alqur'an ya fasante ko ci téere bu ñu demee xool ci suuratul saad buur yàlla tabaraka wa moo ngi wax jullit ñi xeetu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa ci aaya ba nga xamante ne mooy bur yàlla ne yonent bi ne xamalal sa xeet ne téere bi ma jox ni mu doon sa miracle da di kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun liyadabbaru aayaatihi wa liyatadakkara ulul albaab suratu saad mbokk yi moom lañ fas yéene ubbeeg suñu waxtaan wi tey ñu nar si wéyande ki ci xeetu tegtal ya nga xamante ni téere bi lamboo na ko ëmb na ko ba tax na buur yàlla nañu wàccee naa ko ci yéen jox ko seen professeur bu mag di rasulul mustafa sallallahu alayhi wa mu nekk miracle fa moom waaye nag lafa nekk ci ay barke ay ngeen laa bëgg yéen it ngeen manque ci loolee ba tax na mu ne yonentu bi kitaabun téere la boo xamante ne anzalnaahu maa ko wàccee ci yow ilayka ñu jox la ko mubaarakun mu ànd ak barke téere bu am barke la waaye nag ngeneel ba fa nekk mooy li yadabaru ayaatihi ngir ngeen settantal càmbar ngeen ngeen ngir ngeen mën a xuusandi ngeen war a mën a def investigation ngeen def recherche ci aaya ya nekk kawtéef ya fa nekk waaye nag wali yatadakkara ulul albaab yeneen kuréel yi nga xamante ne ñooy boroom xel yu ñooy boroom xel yu yaatu yi ñu di si war a mën a xelaat ñu di si mën a manqué lay defar seen xel wala ñu di si xalaat la nga xamante ne mooy defar seen addina ak seen àllaaxira bi maanaa ñu war ko war a mën a càmbar war ko war a mën a euh, gëstu war si war a mën a def investigation war si war a mën a def recherche ba nga xamante ne euh, foo ko natt ci njëriñ weesu na ko ba tax na moo tax yàlla ne ko kitaabun anzalnahu ilayka mubaarakun téere la boo xamante ne man yàlla maa ko wàccee ci yow yonent bi mu am barke téere bi dafa lambok barke dong waaw téere bi ko gën a barkeel ci kaw suuf si lépp lu waay bind lépp lu waay di jàng alquran moo ko gën a am barke yàlla ne li yatadabbaru ayatihi aw li yadabbaru ayatihi ngir ñu war a mën a càmbar ngir ñu war a mën a gistu ñu war a mën a saytu ñu war a mën a xuusandi kawtéef ya fa nekk waaye wali yatadakkara ulul albaab boroom xel yu yanj yi ñu war si war a mën a xelaat génni ci la seen xel di xelaat ci alquran ngir ñu war a mën a xellil nit ñi la jóge ko ci alquran boobu mu am ci tex bi nga xamante ne kenn du ko laam-laame waaw mu ni lu leer nañ ngir borom xel yu yànje yi war ko mën a xelli nit ñi ci penc bi waa pénc bi narsi war a mën a jëfandikoo moo tax suñu maam yi nekk ci loole li yadabbaru ayatihi wa li tadakkara ulul albaab ñu nekk ci bésuñu sëriñ yi jot si ñoomit ñu nekk ci li yadabbaru ayatihi wa li yatadakkara ulul albaab ba suñu sëriñu sëriñ yi jot si ñoom ñu nekk ci li yaddabaru ayaatihi wa li yatadakkara ulul albaab suñu sëriñu sëriñ yi tamit jot si ñu nit ñu jot si ñu war si war a mën a nab na bég mbokk yi ci daara ji ci réew mi fm 97.5 ci waxtaanu fajar bay jaar ci waxtu bi lépp luñ si war a mën a nab yal nañu ko yàlla nangul yal nañu ci yàlla may dégg ak topp yal nañu yàlla boole ci kuréel ba yàlla tagg mu ne leen wa qaalu sami'na wa ataana ñoom de dañ ne dégg nañ la alquran di junj dégg nañ la alquran téral waaye dégg nañ lépp lu yonent bi saxal sallallahu alayhi wa te fas yéene nañoo wéyandi ci la alquran téral te yonent bi jàngale ko alayhi afdalu salaatu wa aska taslima ba tax na ñu fas yéene ànd ak yéen ci maana kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun li yadabbaru ayatihi wa li ulul albaab ñu nar see war a mun a jukki aaya ba nekk ci suratu tahrim buur yàlla tabaraka wa di baaxe yonent bi alayhi wa ci melokaanu ay jëmm yoo nga xamante ne ñoom de dañ ay nit ñi nga xamante ne yàlla buur bi tabaraka wa taala moo leen wërsëgal ngir ñu war a mën a dund la leen buur yàlla subhaanahu wa nara joxoñal ci la nga xamante ne mooy ci aaya bi buñ demee xool aaya bi mbokk yi dinañ fa fekk buur yàlla tabaraka wa taala joxoñal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yaa ayyuhalladina amanu tuubu ila allahi tawbatan nasuha asaa rabbukum an yukfira an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudxilukum jannatin tajri min taxtiha al anhaar yawma laa yuxzi llahu nnabiya walladina aamanuu maahu nuurahum nuuruhum yasaa bayna aydihim wa bi aymaanihim rabbana atmim lana nuurana waxfir lana innaka ala kulli cheyin qadir mbokk yi suratu tahrim buur yàlla tabaraka wa taala moo ngi ni di avertir doomu aadama bi rawatina yow mi bokk ci daairatul iman yàlla buur bi tabaraka wa taala partage ñun lenn ci aaya ba woy gëm yàlla yi war a jëfandiku suñu borom tabaraka taala ne ñu yaa ayyuha alladina amanu ay yéen ñi gëm wuyu la leen di woo ak ci lam leen di woo kon woote la boo xamante ni buur yàlla tabaraka wa taala moo ko woote képp ku di gëm yàlla képp ku di aji gëm yàlla danga war a dem wuyu woote bala buur yàlla woo ci lam la bugg wax ni kon nañ leen bokk dugg ci géeju alquran ñu xuusandi xool aaya bi lañ ci war a mën a jëlee ko maana mbokk yi buur yàlla tabaraka wa moo woote woy gom yàlla ñi ni ñu yaa ayyuha alladina amanu yéen ñi gëm yàlla tuubu na ngeen tuub mboolem seen yéen ak seen njaboot ñi na ngeen bokk tuub jébbal seen bopp fa yàlla ngir mu jéggal leen rëcc rëcc ba rëcc ci yéen ci jëf wala ci kàddu na ngeen dellu fa yalla ngeen sàkku fa moom tuub njéggal ngir mu nangul leen seen tuub bi tuubu na ngeen tuub ilallahi fa yàlla tawbatan ab tuub boo xamante ne nasuuxan da di tuub bu sell nga xamante ne da di rëccu la ngeen defoon te fas yéene see bañ a delsi ba keroog ngeen di dajeeg seen borom képp ku tuub tuub bi ni mel rabbukum amaana seen borom an yukaffira ankum mu jéggal leen sey sayi'atikum seen ñaawtiif ya ngeen jëfoon du yem fa loolu de wa yudxilukum mu dugal leen tabbil leen keroog bis pénc jannaatin ay arjana yi nga xamante ne tajiri dina daw min taxtihaa ci suufu arjana yooyu al anhaaru ay dex yawma bés bi nga xamante ne laa yuxuzillaha yalla buur bi tabaraka wa taala du gàcceel annabiya yonanteem bi wallazina ak képp koo xamante ne amanu gëm nga maahu topp yonant bi nuuruhum keroog yàlla da leen di brancher ay projecteur yi nga xamante ne yasaa bayna aydihim ci projecteur boobu la gaay di doxee yàlla brancher leen ay lumière yi nga xamante ne du doon projecteur àddina ba ñu xam tellement ak lëndëmaay àdduna ndax keroog bés penc jant du am jant du liggéey weer du liggéey projecteur amut waay yàlla mooy baransel képp ku di aji gëm yàlla topp yonent bi sallallahu alayhi wa ci ay ndiglim bay ay tereem yàlla dina la teeru ay projecteur yi nga xamante ne ci projecteur yooyu ngay niitoo fa ngay doxe moo tax yàlla ne bayna aydihim projecteur boobu lumière yooyu moo leen di won moo leen di tegtal fi nga xamante ne fa la ñuy teg seen tànk wa bi aymaanihim waaye moo leen di won seen loxo ndeyjoor ak seen loxo càmmoñ ak seen kanam ak seen ginnaaw kem projecteur boobu yow dong mi gëm yàlla wéetal yàlla bokkaalewulook yàlla lenn ko dara topp yonent ci ay ndiglim bàyyi ay teram yow la yàlla di installer projecteur bi nga xamante ni yow kepp dong lalay niital fa ngay dox waaw su ko defee jëmm yooyu ñu naan yaquluuna ñuy wax ne rabbana ñuy ñaan yàlla atmim la na ñu ngi lay ñaan yàlla nga ñu mottalal nuurana suñu leer bëgg ñu leeralal nii waaw ndax ñoom dañoo tàmm fii ci dund àddina limeer bay xuy xamaj lañu tàmm waaye nag fee limeer boobu day doon luy ànd ak ñoom ba ñu tàbbi àjjana moo tax ñu naan na ñu naan rabbana buri yàlla ñu ngi lay ñaan atmim la na yàlla nga ñu matalal nuura na leeraay bi ñu baaxee leeraay bi ñu yenkeewal nii yàlla ñu ko matalal te tamit ñu ngi lay ñaan bi léegi wax fir lana yàlla nga ñu jéggal waaw yàlla nga ñu jéggal innaka ndax yow yàlla ala kulli shay'in ci bépp mbir qadir li nga am kattan nga bépp mbir am nga ci kattan ju mat sëkk sëkk sëkk sëkk lu jiitu aaya bi nag aaya bi la ci nekk ci kaw aaya bi mooy yaa ayyuha alladina amanu yéen ñi gëm yàlla qu anfusakum na ngeen fegal seen bopp wa ahlikum ak seeni njaboot naaran safara soo xamante ne wa quuduha nnaas wal xijaara la koy xamb mooy nit ak xeer yàlla ne alayha bokk na ci ñay wottu safara soosu malaikatun ay malaaka yi nga xamante ne ilaazun shidaadun malaaka yu ñàng la malaaka yu dëgër lañu ñu am kattan lañu seeni melokaan laa yaasuuna allaha ma amrahum déet ñu di ñuy weddi yàlla ci lépp laleen leen yàlla digal wa yafaluuna ñoom daal luy seen liggéey mooy dañuy wéy ci la leen yàlla sant maa yumaruun ci ndigal bu jóge koo fa moo tax yàlla ne yaa ayyuha alladina aamanu qu anfusakum wa ahlikum naaran waquuduha annaasu walxijaara alayha malaikatun cilaajun shidaadun laa yacsuuna allaha ma amarahum wa yufcaluuna maa yumaruun yàlla buur bi ne yéen ñi gëm yàlla ngalawaay na ngeen seen bopp safara waaye ngeen fegal sen njaboot ñi safara ndax safara la boo xamante ne ah la fa nekk daal mooy malaaka ya koy wottu ay malaaka yu dëgër lañ ay malaaka yu ñàng lañ ay malaaka yoo xamante ne a ah, laa yaasuuna allaha ma amarahum duñu weddi dara dara dara li leen yàlla digal waaye nag lay doon seen liggéey mooy wa yafaluuna maa yumaruun ñoom daal dañoo nekkee di jëf lépp lu leen buur yàlla digal jalla waala kon ñu déggee ci ne ba léegi yow doomu aadama bi na nga tegtaloo lala yenentu bi joxoñal sallallahu alayhi wa sallam na nga doon ko nooy na nga doon kuy jéggal nit ñi na nga doon kuy nekk ak nit ñi ci anam bi nga xamante ne mooy anam bu mucc ayib nanga nga jéggal nit ñi si seeni rëcc-rëcc yi na ngay baal say njaboot na nga am compréhension buy dox sa digganteeg ñeneen ñu dul say njaboot nga doon nit ku noy ci pénc bi nga doon nit ku am compréhension ci sa employé waaye na employé am compréhension ci seen patron bi na soxna si am compréhension ci euh, borom këram waaye na borom kër gi tamit am ab compréhension ba muy doxal digganteem ak njabootam ba tax na yenentu bi sallallahu alayhi wa sallam moo ngi ni di ñu joxoñal nee nañu kaana rajulun yudayinu naas fa kaana yaquulu li fataahu ida atayta mucsiran fa tajaawaza anhu laalla allahu yatajaawaza anna fa laqiya allahu fa tajaawaza anhu saxiihul muslim mbokk yi yal na jàmmi yàlla nekk ci yéen ak seen njaboot yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de mu ngi ni dañu joxoñal fii ne yow nit ki da nga war a nekk ku nooy ci pénc bi nga am compréhension bi ngay installé sa digganteeg ñeneen ñi ba tax na yonent bi nee na ab waaya ngi nii daal daa nekkoon ci jamono di lebal nit ñi waaw dafa am koom-koom bi mu yore mu di ko lebal nit ñi waaye booy ya ko doon liggéeyal employé yi nga xamante ne ñoo nekk di récolter bénéfice ya ñuy jëlee ci nit ñamu lebaloon waa ji daal da doon wax booy ne ci képp ki ngeen dem ngeen fekk ko mu toll ci tolof-tolof mu nekk ci diggante na ko comprendre na ngeen ko jéggal ngeen baal ko amaana ñu nit bu ñu dajeek yàlla yàlla baal ñu waa ji nekkee nii muy dunde nii ak ñamuy lebal booyaami bu ñu demee ci nit ñi ñu fekk kenn ku nekk ci tolof-tolof dañuy appliquer la leen patron bi wax waaw dañ la naan waaw jéggal nañ la ba keroog jamono di neex su ko defee ñu daldi la bàyyi waa ji nekkee noonu keroog bu mu faatoo yonent bi ne waa ji dajeg boromam yàlla ne ko du yaa nekkoon ci àddina di dimbali nit ñi di leen xeetali ci la ma mu ne ko waaw yàlla ne ko ña nga doon fayekul bu fekkente ne am na ki am tolof-tolof n'est-ce ko doon wax ne jéggal naa la bi keroog jamono di neex mu ne ko waaw noonu laa doon jëflanteek nit ñi de yàlla ne ko nag yaakaar ba nga amoon ci man ne bu ma dajeek yow dinaa la jéggal ma nit jéggal naa la allahu akbar kon képp ku bëgg yàlla di la jéggal dil jéggal nit ñi képp ku bëgg yàlla jàppandalal la say mbir yow it dil jàppandalal nit ñi ci lu jafe lañu nekke képp ku bëgg yàlla xettali la ci tolof tolof dil xettali nit ñi ci tolof tolof ya ñu nekkee kon ñu déggee ci ne la yonentu bi wax ci maana xadis nu aadam yow doomu aadama ifal ma chit jëfal li la neex defal li la soob waaw waaye nag danga nga bàyyi sa xel ne kamaatu diinu lépp li nga leble tuddaan buñ lay fay ci loolu lañ lay fay lépp li nga leble loolu lañ lay fay loolu boo ko xamee su ko defee di nga noppale ko kon mbokk yi lii mooy la leen Rewmi FM 97.5 andil ci waxtaanu fajar bi ñu ñaan yàlla suñu borom tabaraka wa taala an yajalana min alladina yastami'una alqawla fa yattabi'una ahsana yal nañu yàlla boole ci ñi nga xamante ne bu ñu digg kàddu dañuy tànn ci gën a rafet amin ya rabbal alamin waxtaan bi jeexut dañoo yegg ci fu ñu war a yëkkatee jotaay bi nar a jébbal béréb bi ñuy joxe xibaar ci nasaraan noo ngi ñaan yàlla suñu borom tabaraka wa taala an yaxfada bilaadana min al fitan ma dahara minha wa ma batan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 wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu